premier ministre am daal dinañ jël dogal bu am solo mu di dakkal bépp liggéey bu ñuy amal ci wàllum suuf féete ci bërëb yu fasantikoo ci Ndakaaru Thiès ak Saint-Louis mu di loo xam ni yàgg naa jur coow ci réew mi surtout ci at yu weesu ñu nemmeeku bëriwaayu ay kër ay immeuble ay hôtel ay restaurant yu ni mel ci littoral yooyee loolee doon indi ay yàqu-yàqu ci wàllu environnement dem bay jàpp wér yaramu askan wi waay itam di jur ay néew di doole loolee tax itam bay askan di songoo di xëccoo lu ñu jàpp ni seen suufu maam la ñu jox waaye nit ñoo xam ni ay hommes d'affaires lañ te doylu benn yoon ci wàllum suufa loolee nag di gën di bëri saa su ne loolee nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay dogal bi mu jël ñu dakkal ko dana tax mbir yi leer ñu xam kan moo am dëgg kan moo daan jël alal askan wi ak fu mu ko daan yóbbu faaw kon ñu sumb ab xeex bu am solo jëm ci defkatu ñaawteef yooyu gouvernement bi le faaw rek mu xam ni mbirum suufa nar naa gën a jur coow ci at yi ñu dëgmaal ndax nag lim mën a yàq dafa bëri lool ci wàllum politique ci wàllum koom waaye itam ci wàllum wér-gu-yaram faaw rek xeex bile ànd ak fa ngir mën a feeñal ñi nga xam ni doxuñu ci lu dul ger te seenu jubluwaay du fenn fu mooy suufus Ndakaaru Thiès Saint-Louis ak yu ni mel